rafetlu nañ ko lool dara desu ci di sant bu baax ñii mu ko àndaloon ñëpp xam nañu seen taxawaay bu baax xam nañu seen yéene ak seen pastéef bu gis nañ jëf ci itam bu baax a baax bi nee na mi leen di sant bu baax te di leen gërëm gannaaw loolu itam ñu ngi sant ñi mu bokkal liggéey bi yëpp muy liggéey bi sëriñ bi ne ñaari xaaj rekk lañu muy mag ñi ak ndaw mag ñi xam nañ seen pastéef bu wér ak seen taxawaay bu dëgër ak seen yitte ju mag xam nañ ko ci ñoom kon loolu lañ leen di sant bu baax a baax di leen sant te di leen gërëm ne ndaw ñi itam gis nañ ni am nañ tawféex ju rëy mel na ni ñoom ñëpp sëriñ bi ma seen yittee te loolu mën na la defaral seen lépp seen tay ak ëllëg seen biir ak biti kon nag noonu rek la demee kenn ku nekk nee di soññ boppam kenn ku nekk na soññ boppam ci sëriñ bi ci jéem koy xam waxtu wu ne jéem koo topp na ko bëggee ndax di ba boromam doy loo na ko sëkk ci suñ lépp moom boolewul ak dara boole ko dara kon nag alhamdulilahi rabbil alamin nañ sant bu baax te doyloo ko sëkk suñu digganteeg suñu borom ko sëkk digganteeg suñu borom wéetal suñu borom doyloo sëriñ bi suñu digganteeg moom nee doy na foofu rek te sax fa seen xajal yàlla ci dara suñu lépp lañ ko te gën a góorgóorlu bu baax a lañ ko jëmale ci sëñ bi fas yéene sax dàkk ci jaamu yàlla nit ñu ko bëggale sax dàkk ci liggéeyal ko te yàlla tax lañ sax dàkk foofu rek ba ca incha allah ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. nee lépp lépp gën naa dolli nee lépp gën naa fa lépp gën naa nasu suñu xol seet na guy guy suñu xel na di teex suñu njox du gën naa rafet kon am na yaqiin wa am rabbuka hatta yakal yaqin loolu rek la demee ñu nekk rek la foofu rek sax fa duñ fa gis kenn ku dul sëriñ bi jërë ñu tàllal sëriñ bi ñaan Mbàkke sëriñ boo ngi lay sant di la gërëm ak njabootu maam Cheikh Anta gépp Alaaji Abdoulaye Dia sëriñ bi